presse sénégalaise gërëm aussi euh, li nga xam ne rek moom moo di euh, ñi ci taxaw ñëpp à commencer par euh, mon avocat ou bien le pôle d'avocat dirigé par maître El vraiment remercier leen ci liggéey bu am solo bi nga xam ni def nañ ko remercier aussi ma famille mais aussi mes amis et plus particulièrement Moussa Thiam qui est un frère un ami donc vraiment wax ne ñi ngi sant yàlla bu baax a baax. alors lu jëm ci sa libération bi naka nga ko dundee. waaw sant sunu borom sant sunu borom parce que beaucoup pensaient que ni du mën a nekk. ku ci nekk wut na lu mu wax ñii wut nañ ay charge ñii men dem nañ sax bu wutal ma ay charge ak ay peine yoo xam ne moom lañ jàpp ne moom lay tëdd mais comme j'ai toujours eu confiance en la justice de mon pays et tey maa ngi nii après 72 heures euh, sant yàlla bu baax a baax donc euh, gën di am yaakaar ci sama justice réew ba pare. Euh, nga am ay retour de parquet yu mag ñaari retour de parquet loolu lan nga ko dundee ka waaw difficilement quand même parce que ça pèse lourd ci xel ci xalaat mais toujours da ngay gëm rek. Euh, ci jàmm lay mujj parce que mënta woon mujj ci lu dul kay génn ndax euh, képp koo xam ni topp nga dossier bi commencement ba fi mu yegg si da ngay xam ni li ñu war a def lañ def en tant que chroniqueur en tant que citoyen en tant que koo xam si ne am na xalaatam di ko wax wax ko ah, ca na mu gën a rafetee pour faire comprendre aux téléspectateurs de la Sen TV plus particulièrement à ceux qui regardent li nga xam ne moom moo di euh, grande gueule que lii mooy suñu opinion lii moom mooy suñu gis-gis donc s'il y a des gens yoo xam ne si ne ni ils ont pour actionner Euh, le procureur pour que mu am ay poursuite parce que seen xel moo toll noonu mais que tey mujjanteel gi rek mooy ñi ngi nii et ni mu nekkee ci man noonu tamit laa ko yaakaaree ci le président Bougane noonu laa ko yaakaaree ci nga xam ne aussi mooy Cheikh Yirim Seck parce que tamit ñëw nañ fekk ñu ndax maa jiitu Cheikh Yirim fekk si ma Bougane doog a ñëw fekk ñu mais ku ñëw fekk ñu da nga naan non lii naka la mën a possible parce que jàmm ak xel mu dal bi ñu nekkee ak aussi dund dund dund bu dund bu nangu nangu nattu yi mais aussi nangu ni ak lu mën a am. dëgg moom mooy mujj et que dëgg bi mujj laa gis confiance boobu ci la président Bougane Gueye Dany gis ko ci nga xam ne moom moo di Cheikh Yérim Seck et ku duggoon tey ci biir fekk leen fa da ngay xam ne ñii amuñu dara stress amuñu dara dara luy wane ni am na lu ñuy ragal wala am nañ quelque chose à se reprocher et que aussi continuer ba tey di am confiance rek ci suñu justice réew gëm ni euh, li ma fi génne tey dina génne ñeneen waaye li wér mooy sama condition wu loolu damay bëgg bàyyi primaire boobu ak ki nga moo di Maître El Hadji Diouf te yaakaar ni fii ci kanam aussi Euh, ñi ci sama ginnaaw dinañ ci topp génn si. Euh, waaw sant yàlla bu baax a baax xam naa dina bett ñu bari. waaye sant daal moo ko waxee. dina dina tënk lépp mais toujours que Maître El Hadj Diouf lañ koy bàyyil xam naa ni mooy gën a approprié ci wax. fi dossier bi toll fi ñu ci jaar ba fi ñu ci agsi ak it euh, finalité bi lan la li may wax rek mooy dina jàngal ñu bëree bari àdduna. waaye dinañ gën a am confiance ci suñu justice réew ndax après retour de parquet yu bari mu jeexee fi mu jeexee. Euh, du bëri en queue de poisson waaye bu ma nee sant li ci des moom dina ko àggale parce que après les termes juridiques et techniques. waaw euh, comme je viens de le dire c'est c'est Bougane Gueye Dany et Cheikh Yérim Seck vraiment des gens yoo xam ne seen biir ñëwee. Ah, ils ont tellement accepté que ni lii seen seen destin la. et ñu pare aussi pour affronter ko pare ñu pour dellu ginnaaw pare wuñu pour yox yoxal pare ñu pour euh, euh, wax lu dul dëgg parce que lu ñu gëm la ñuy wax mm. et que kenn ku ci nekk ci ñoom aussi boo ko xoolee ci comportement am ci tooginam ak ni mu nangoo da ngay xam ne ñii jàpp nañ ci lu dëgër et que des gens yu ñu mën a am confiance yu mën a am yaakaar Euh, c'est très rare euh, monsieur Kader nga euh, siab am ñaari retour mhm. mhm. mhm. waaw mais incroyable n'est pas sénégalais incroyable aussi n'est pas Kader donc j'ai toujours gardé confiance que ça va bien se finir et que alhamdulilah loolu moom moo am donc les retours de parquet c'était un peu difficile et ça a beaucoup pesé même sur moi sur euh, même les autres yi nga xam si ñoom la ñu nekkal et aussi Cheikh Yérim parce que y aussi kon que je ne peux pas me permettre de mais des autorités des gens yoo xam ne nii si mhm. euh, moo tax ma ni la vous serez très surpris ngeen xam lan moom moo xew je peux bien répondre tout de suite mais ce primaire je laisse ça à maître El Hadj non parce que je sais que ni El Hadj est plus approprié pour wax ci loolu ainsi que les autres les autres avocats yi nga xam ne si ne ni demoon nañ ba mot 6 à 7 te ñoom ñëpp kenn ku ci nekk ñëw de manière volontaire jàpp ci parce que bi ñu yëgee ni man la ku ci nekk ñëw na. alors Alioune Tine gis nañ ko doyen mu doon sàkku mhm. je le remercie du fond du cœur. bien que euh, parfois da doon métti léeg sama appréciation sur certains points mais bi jóg jotee jóg na. Mhm. et que sa montre que c' est c' quelqu'un de grand c' quelqu'un qui sait euh, euh, lan la yor comme ay responsabilités quelqu'un qui sait apprécier dëgg ak lu dul dëgg. et que li nga xam ne si ni moom moo di les mouvements mhm. yëpp dañ leen remercier parce que ku ci nekk jox nañ la waa difficilement mais pare woon nañ quand même pour dire vrai je pense que da nga may may euh, occasion ma remercier une personne boo xam ne si ni sans moom euh, tout ça du woon possible wala doon naa ragal muy ma femme parce que elle a été très brave je pense que ne tey su ma gëstoo gis ko dinaa gën a am fierté ci moom parce que su ma yemee ci suma jabar je pense que yóbbu naa suma famille yëpp mais ce qui est waaw yàlla na la yàlla fay donc yàlla na yàlla fay mboolem Sénégalais yi mais nag euh, toujours sant yàlla li wétoor mooy Euh, ñi ci sama ginnaaw man maa ngi séntu ci waxtu yu ñu jëm incha allah ñu bàyyi leen te am naa ci yaakaar te ñoom it am nañ ci yaakaar te tey ku fekkoon président Bougane ci biir euh, ak Bougane bi ngay gis ci biti Cheikh Yirim ak Cheikh Yirim bi ma fekk ci biir non loolu damay bàyyi ba affaire yi dal dinaa ko maye mais xam naa ci plateau lay doon ci ni nga xam ne noonu lañ bokkee léegi-léegi mais merci beaucoup merci jërë ngeen